mbokki mbokki talibé yi ñi ngi lay di nuyu bu baax ñi ngi lay di ziaré di ci jiital serigne Muntaxa mbacké mo mi nga xamné mo tok toog ci jataayu Cheikhuna Cheikhul khadim ñi ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam lool te wéral ko ba mo eggale naal yi mu fekk yépp ba eggale naal yi bopam tañ andu ko ak mom di nuyu serigne Ahmadul makhtar mbacké mo mi toog jataayu Cheikh mustafa Al Karim ñi ngi ñaan suñ borom yagal ko fi lol te wëral ko waaye ñi ngi jaarale ci mom nuyo njabootuk serigne Touba gep ngir xamnañ ne Cheikh mohammed Moustapha mu ñëk wutu khadim Xaadimu Rasul di leen nuyu yeen ñi nga xamne yeen ngi ñuy top ci seen site bi di jant bi TV ñi ngi leen di ziaré bax di ñaan suñ kaddu fekk leen ci jamm di ñaan suñ borom mi nga xamne nak moy borom jamm yalla na ñu may jamm ñi nga xamne duñu dal jamuk. ko ñaan daate yéen tey jii ci jataay yi nga xam ne dañ koy dundale lislaam di ci wesaare njàngaleem sëriñ tubaa di ko jaare ci ñi nga xam ne njaboot gi nga xam ne jiitu woon nañ fi te jëf fi jëf joo xam ne diine jamu ko ngor jamu leen waaye réew miit jamu leen ba tax na ñooñee nga xam ne ñoo fi jiitu woon seen jaar jaar yu rafet yooyee dana am solo ñu fàttali ko ngir ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg fu ñu jaar ba egg fañ jëm ñoom fañ ba egg fañ egg ñoom ñoo am yoon wuñ jaar wu leer woo xam ne ñoom ñoo ñii daal leen mën a roy waaye ñi nga xam ne fekk wan leen ca yoon woowee te fàtt it daañ ci mën a fàttali ko hmm. tey nag ñu tànn kenn ca ñoom ñoo ñii nga xam ne ñoo jiitu woon bokk ci njabootu sëriñ bi muy jàmbaar di borom yar ku am ami teggin ku mën a dimbalee ku mën a toppe di borom alxuraanul karim kooku yaakaar naa bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci sëriñ Mbacke Madina kon jàmbaar jooju lañ fas yéene waxtaane tey jii ñu ngi nuyu nag bu baax a baax sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp njaboot gi. yàlla na leen yàggal jiite lool. amiin naa li bàyyi bu tedd boobee. waaye nag eggale naa li boppam yépp ba kenn bañ ko eggale dara ci barke Cheikh Modou Sa. ñu ànd ak jataay bi nag sëriñ Moustapha Dieng bokk ci njabootu sëriñ Mbacke Madina. di kenn ci jambar yi nga xamne mi ngi yëngu ci daayira bi serigne mustapha momi lañ fassiyene andal jotaay bi su ko defé nak bala ñuy jall ma sant serigne malik ndjay nuyu ko bu baax moom mi nga xamne moy cameraman bu jant bi TV di ci def liggey bu ama am solo waye serigne Abdoulaye Samb bi nga xamne moy coordinateur bi. su ko defé dañuy daali euh, tabbi rek ci waxtaan yi ma jox mustapha jeng euh mu bolé nuyoo bi ak laaj bu ñëkk bi ndax xam nañ ne ñom ñaar mëna ñu and serigne mustapha bo ba pare. Jambargi gi ma tudd legi ak jukko mi nga xamne wax naa ko jukkoom yi rafet euh bëggon nañu xam fu mu ganee aduna waye fu mu bok ci ak mbok ndax xamna bu ñu tekk bok ga da nga ñuko wasarel tuti euh bu ñu nee seigne Modou Sa sëtub mam Thierno ibrahim sëtub seigne dab abdourahman Lo yakara naa doy na présentation wa doy na sëkk waaye du nga ngir lolo waccay la bu seigne Madina def mm-hmm. waye fu mu alcorane karim mm-hmm. loolu bëgg nañ ko xam sëñ Moustapha ginnaaw nuyoo bi bisimilah. di ko ñaan di ko ñaanal noonu si Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Moustapha di ko ñaan noonu xalifab sëñ Mbacke Mad di sëñ Cheikh Mbacke ñi ngi jël nuyoo boobu nag siyaar boobu di ko teg ci seen loxo yéen ñaar ñi di sëñ ak sëñ Malick mi nga xam ne ñoom laa jàkkaar lool ah, ginnaaw nuyoo yooyu ak eh, eh, siyaar yooyu ñëw ci kon laaj bu njëkk bi nga xam ne moom nga ñu te mooy eh, li nga xam ne mooy dunduk sëriñ Mbacke Madina di dina koo xam ne gu barke lool la sëriñ ma Madina nag xam nañ ne fi mu bokk bokk la koo xam ne ku fa bokk ma mën koo tiitaroo ndax ku ne sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu mooy sa maam foofu mat waaye koo xam ne itam aw askanam buñ ko buñ ko toppee mu dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ne fa tabaaraka fi fi fi mu bokk fu tànn la bokk moom sëriñ Mbàkke Madina mooy ku ne xam na ne Euh, am na maam ju ñu daan tuddee maam maaram nga xam ne bu ñu daan tudd bu ñu daan wàññi askanu euh, sëriñ Touba radiyallahu ta'ala anhu dañuy wax ne moom mooy seenum àdduna seenum seenum àdduna kon maam maaram moomu amoon na doom ju tudd Ahmadou Soxna Bousso mu jur Soxna Bousso Lawbe Mbacke mu jur Soxna faati Issa Diop mu jur Soxna Aminta Mbacke ñu Soxna Aminta Mbacke moomu nag moom nañ joxoon sëñ Dame Abdourahmane loo moo am ca ñii. di soxna Faati Lo ak soxna Aminta Lo ak soxna Astu Lo ak soxna soxna Mariamu Lo ak soxna Xari ak soxna Sooda Lo ak soxna Aminata Lo soxna Aminata Lo mii nag moom lañu jox Cheikh Mawadinil Moustapha Mbakke mu am ca soxna Mariamu Mbakke ak sëriñ Mbakke Madina nga xam ne kon noonu la bokk ci askanu maaram moo tax wayu jur mu tedd wa di Cheikh Mawadou Moustapha da daan wax ne sëriñ Mbàkke Madina mii kat jiitewuma ko ci sëriñ Touba ndax bu ñu tappee aw askanam ñoo bokk fu bàyyi koo muy ci góor mu ci wàllu ci ci ci jigéen kon moom jiitoo ko sëriñ Touba kon day mel na loolu am solo la waaye lu mat a bàyyi xel waaye askan woowu nag mu bokk ndax da koo doy la woon rek déedéet doy la ko woon ba tax maanaam mu boot ay loxoom waaye dafa jaaroon fa nga xam ne fi la euh, ma euh, way juróomi jaaroon waaye fi la maga bi teddee jaaroon moo tax moom Serigne Mbacke Madina mi ngi gane àdduna ci Touba ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru saxbaan dëppoog la 25 la 25 8e mois 1331 kon bu dee ci hijriya kon loola dëppool bu dee ci miladiya mi ngi dëppoog la 30 la la la 37e mois bu dee ci ci ci ci miladiya bu dee sëñ moo Modu moom itam bi ko yàlla boole ci askan wu tedd woowu ci askan wu baax woowu euh, teewut itam nag ñu xam ne askan moom la leen di ràññale dëgg dëgg dëgg du ay tur ay sant waaye ay jikko lay doon ay jikko itam mënee su ko tuddee tudd te nit ki rootewu ko ci alxuraan moo tax moom euh, sëriñ bi di Seex Mustafaa da ko dugal ci euh, jàngukaay mu tàmbali fa am njàngam mi nga tàmbali am njàngu alxuraanam ci moog sañ moog magam ja sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci ku ñu ku ñu wax sañ Muxtaar Aale Lo ci dañu tàmbalee seenum njàng seen njàng alxuraan waaye euh, ñi ci foofu ci Tindóoti waaye ñi ngi mottalee nag seen alluwo ci sora foofu lañ mokkale alxuraan biñ mokkale alxuraan ndax loolu doy ndax ku ne xam ne téere bi di alxuraanu karim nit ki bu ko jàngee ba noppi war na koo mën a euh, faram-fànce mooy gën a jàng xam-xam yi nga xam ne mooy tax nga mën a xam li nekk ci biir alxuraan ci firima ak la ci aju lépp moo tax bi noppee sëriñ bi dafa daal di leen euh, dalal njàngum xam-xam ki mu leen boole leen ngir mu dalal leen xam-xam mooy sëñ Muxtaar Aale Lo sëñ Muxtaar euh, astaghfirullah azim sëñ Muxtaar euh, gu yaar wax na ne sëñ sëñ sëñ Muxtaar Aale Lo moomu bi yàlla dogalee maanaam ñu mokkal alquran da leen indi ci Cheikh Moustapha yëgal ko ne kat ñi ngi ma boole loon kat mokkal nañu alquran mu wax ko ne ko demal yóbbul ma leen ci Serigne Touba ba fekk na Serigne bi mi ngi njaareem bi mu ne ci Serigne Touba Serigne Touba saytu seen seen aliwoo moo gis ne seen mokkal rafet na euh, seen mokkal itam set na. ci la leen nattu kenn ku nekk mu tare loola aw saar biñ taree saar biñ taree saar yooyu ñu tari nag ci la gis ne maanaam seen mokkal fa tabaarakallaahu rafet na lool. ginnaaw bi ni ko waxee maanaam ñu boole nag ku ñu wax sëñ Muxtaar Jàng Guyaar euh, mu deel mu dalal leen euh, xam-xam. Euh, ñu am fa ñaari at bi ñu amee ñaari at nag ci la leen Cheikh Moustapha woolu euh, wax ku ñuy wax Ahmadou Diang xasan mu euh, ne ko damaa bëgg nga yóbbul ma leen gànnaar nga xam ne ginaaw bi ñu jàngee fii ci réew mi fii ci fii ci Touba ci sëñ Mokhtar Diang Guyaar jàng fa ñaari at ba géeju ci xam-xam ci fànn xam-xam yu bëree bari léegi nag sëriñ bi da leen a wax da daa wax Ahmadou Diang Hassan ne yóbbul ma leen gànnaar. ba démé demee ñi lañu andalon sering Serigne job Lewna ak Serigne Galambay ak Serigne habibou Jang ak Abdou Rasoul digal ba démé demee itam yeguñu fa ndax juróom-ñetti wër rek lañ fa am bañ fa am juróom-ñetti euh ñu si waat Ahmadou Jang Ahmadou Jang hasan wax Cheikh Modou mustapha nako ko jur nga sa bay ba way jur nga sa bop da nako Cheikh mbake mi moy yow. waaye sëriñ Mbàkke Madina nii si sëriñ Mbàkke Madina mii mooy sa bopp te ku ne xam na ne loolu ku ko xool ku nekk danga ko gis ndax ku xool sëriñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma ci fulla ja ak jom ja ak nga xam ne noonu la yoroon noonu noonu noonu noonu noonu la meloon nga xam ne maanaam ku ko joxoon réew rek mën na ko yor organiser ko ba teg ci aw yoon loolu ku ne xam ne fulla jooju ak jom jooju ci Seex Muusaa la ko doonde waaye ku xool sëriñ Mbàkke Madina itam ca ragal yàlla ga ak nangoo jaamu yàlla ga ku ne xam ne tam loolu day delluwaat ci donte nag ñoom ñëpp ku ne xam ne loolu lamb woon nañ ko waaye loolu da ci bëggoon jox ab joxoñ rek moo tax mu ne ko léegi jur nga sa euh, sa baay waaye jur nga sa bopp sa bopp mooy Cheikh Mbacke mii waaye suñu Mbacke Madina mii nag moom mooy mooy mooy sa baay mooy sa baay ba. Euh, ba nga xamee ne suñ borom tabaaraka taala dogal na euh, ñu noppi ci loolu nag Cheikh Moustapha mooy leen tërbiyal boppam am néeg la wutoon fa njaareem biir kër ga. ñu sax fa abdir euh serigne Mahamadou Dem mom la len boole lon mo leen faraan fek di len jangal di len topatal seen lenn ci téré xam-xam yi ba nga xamé né lolu jall na itam Cheikh Moustapha di len tërbiyee ci tërbiyee gëna mat bokk ñi tërbiyee gogo moy dawu nangu kenn di la fi fek di jaxso ak ñom ta ku ne xam na né li salim Saliou Mbacké radiyallahu ta'ala waxon dal di wax né kat yar taqola laaj mo tax Cheikh Moustapha taqawon ak ñom ber leen ci barab boo xam ne kenn du leen fa fekk di jaxasoo ak ñoom ndax ku ne xam ne ne Serigne Touba radiyallahu taala anhu bi mu sanc Touba gi ngir ngir ngir ngir dawale njaboot gi rawale leen ci jàngaleen ak yar leen waaye Cheikh Moussa roy ko ca loolu itam tax ñaar ñooñu nga xam ne mooy Cheikh euh, Sëñ Mbàkke ma ak Sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma bañ noppi ci am njàngum alquran ak njàngum xam-xam mooy lam def mooy benn ci mooy daawut nangu ñuy jaxasoo waaye bokkuñu tërbiya tërbiya itam mooy daawut nangu itam maanaam daawut def itam suñ bëggee bëggee lekk lekk fekki leen fa wala bu ñu bëggee jëfandikoo yu mel noonu loolu nag lam leen di jàngal mooy lan mooy nit kat dafa war a nangoo muñ ab xiif nangoo muñ ab wéetaay waaye nag naka noonu itam dëdd àdduna kon loolu la ñu bëgg ne bañoo bañoo nekk ay sang yëpp say ay sang dëgg faawu loolu day nekk ci ñoom mooy nangoo muñ ab xiif waaye nangoo dëdd àdduna waaye nangoo muñ itam yu baree baree bari. Serigne euh, Dieng macha allah. Euh, mbokk yi ci ubbi bu rafet bi nga xam ne ubbi na ko ci jàmbaar jooju nga xam ne bu ñamoon foofu rek li ci des xel da koy daal di mottali ndax dañu daal di xam ne kon sëñ Mbàkke Madina ku fekkul woon jamonoom da nga daal di fu mu jëm ak lu ko taxoon a mel nii ak liggéey bi mu liggéeyal Cheikh Moussa euh, liggéey bi mu liggéeyal sëñ li tax mu man ko kon gis nañ ko waaye ma soññ rek waajur yi ak taalibe yi ndax euh, waxtaan wi ci loolu rek la amee njëriñ mm-hmm. mooy xoolal mu daj ci sàkku xam-xam mm-hmm. te booba Eh, tàmbale ko sëñ Modou Matar Allé sëñ Modou Matar Allé tindoor la nekkoon yaakaar naa bari nañu jàngal ci njabootu sëriñ Modou sax mm-hmm. ci njabootu sax ñu bari bari mm-hmm. waaye sëriñ Maxtaar Jeen Guyaar mm-hmm. ñuy ay jàmbaar waaye sëñ Modou dem kenn ku nekk dégg na ko xam-xamam bu sell buñ nawoon ak ragal yàlla yàlla waaye sëñ Abibu Mbàkke it kenn ku nekk gis na taxawaayam ndax Cheikh Modou Sa moo ko andi woon fii ngir mu taxawu njaboot gi te loolu lépp sëñ Mbàkke Madina da ko di ca wéy kon ku nangu la ndax booba barke bi bari na ci kanamu Cheikh Moussa sëñ Tuubaa ngi fi barke bi bari lool waaye teewul sa sëñ bàkk Madina dafaa bàyyi loolu lépp daa dem sóobu ci xam-xam mhm. kon yaakaar naa ne ku koy roy njëkk ngay roy ci njaboot gi mhm. mooy ñu fexe ba njaboot gi euh, sàkku xam-xam waaye ku déggoon ndigal yi ndax ndax ma sa jooy waaye juróom yi benn yoon ci li nga xam ne moo nekkoon ci loola mhm. euh, teel ko toppe gi ma jàngat ko ci muy ko nangoo toppe la dama ko waxoon ko ci njëlbeen ga euh, mu njëkk a topp Cheikh Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé ma te dana ñëw bi mu gisul Serigne Mouhamadou Moustapha euh, te booba gis nga seen waajur yi moo leen boole woon loola lu ci mat a jàngat la euh, Serigne Moustapha kon muy jëmm joo xam ne waajal nañ ko ba mu ba ba ba mu duy nag ci xam-xam nga xam ne Euh, euh, yaakaar naa ne ku ko ci natt ku sëñ Tuubaa natt sa xam-xam ba wóolu ko yaakaar naa moom loolu moom foofu doy naa yem sëkk moom mm. te Cheikh naa Cheikh Ahmadou Khadim moo ko natt ci xam-xam bu sel boobi mu natt ko muy xam-xam bu sel mm. léegi nag ñu gis ne dugg nga ci sax naam waaye dana ci gën a xuus tuuti mm. nga boole ko beneen poñ bi des euh, beneen bi ci topp bokk muy tarbiyaam digganteem Cheikh Modou Sa ndax biñ ko jàngaloo ba pare wërloo ko réew mi ngir mu xam li fi ne lu ko waral ak nuñ koy jëfandikoo loolu la sëñ Moussa bëggoon ñu xam ko mm-hmm. li fi ne lu ko waral mm-hmm. waaye nan lañ koy mën a jëfandikoo mm-hmm. loolu lu am solo la waaye nag bi mu noppee nag Cheikh mu euh, ba toog Cheikh Modou Sa yaakaar naa ne sëñ Mbacke Madina liggéey na sëñ Modou Sa liggéey boo xam ne liggéey bu rëy rëy boo xam ne kenn ku nekk mën a caarooy foofu la bëgg nga ñëw nag ci liggéey sëriñ Mahamadou sëriñ Mbacke Madina ginnaaw boo xamante ni bii nag euh, jàng na ba sëriñ Modou Sa tarbiyee ko nag ba pare nag mu soog a sóobu nag ñu loolu ñaan doomi mbër jàngil bëri yàgg-yàgg des na la mas ñoom dëgg la bismillah sëñ bi kon loolu yit lu yaatu la ndax ku ne xam ne Euh, bi yàlla dogalee Serigne Cheikh Mbacke Gueye defaan ma jóge fi te ma ne saa wax na sax lu jiitu mu fi jóge la ko tàmbali woon ndax li ta li euh, bi mu fi jógeegut ku ne xam ne ne euh, sëriñ Serigne Mbacke Madina bokk na ci li mu royee way juriñ ya ak maamam ya bokk na ca mooy sanc ay daara ngir ne buñ ne kii sëtub Serigne Touba la wala doomi Serigne Touba la il ay nit yaakaar la di la jox seenu njaboot su ko defee na njaboot googu lam laaj mooy ñi toll ñi mat a jàng nga jànga leen ñi mat a tarbiya nga tarbiya leen loolu it da cee bayoon bay wu yaatu euh, sanc na euh, bokk na ci daar yi mooy Madina euh, Madina sancoon na fa daara ak Daaru Rahman ak Daaru Minan ak Daaru Rahman xombal gannaaw ba itam mu sancaat fi ñuy wax ñaamar naka noonu fu ñuy wax Daaru Xuddoos itam amoon na fa daara te wetu bustaan kayal kon loolu li muy tegtale mooy kon ndeke moom yëg na ne kon moom warta ma tëdd nelaw ñii nga xam ne nag ñoom la jiite woon mooy mu sànce leen ay daara ñu nekk fa di yow di liggéeyal yàlla eh, di jaamu yàlla ñooñu ñëpp itam lam leen giidee woon mooy ragal yàlla gu wërsëg jàngale ak ak ak ak ragal yàlla ndax daan leen wax ne kat eh, maanaam bépp taalib boo xam ne gis na ma ci li neexut yàlla ci li neexut yàlla ma seeti benn sëriñ loolu yaakaar naa ne ku mat dëgg moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo koy bàyyi xel. moo tax taalibe yooyu taalibe yooyu mu ànd ak ñëpp ñu àndalu ñëpp ci loolu la la yar mooy ci ci ragal yàlla na yar ci ci nangoo muñ ci doon ko sell doon koo xam ne maanaam buñ ñibbee mën a mën a mën a mën a mën a jariñ seen askan. bokk na ci mooy bi mu toogee xilaafa ginnaaw bi fi Cheikh Moustapha jógee bokk na ci liggéey bi nga xam ne liggéey na ko Serigne Touba mooy tabaxal ko jàkk ji di jàkkee Darou Khoudoss yoo xam ne dañ ci sëriñ bi la woon boo xam ne foofu la dee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba foofee tukki bi foofu la foofu la sawaboo te loolu euh, bi muy tabax jumaa jàkka jooju mi ngi mi ngi mi ngi tombé la 23 6e mois 1978 mi ngi tolloog euh, bi muy liggéeyal jumaa ji foofu la tàmbalee mooy kon mu tàmbali kon ci liggéeyal Serigne Touba jàkka ji mu defoon lixtikaaf ba dem ci liggéey bu mag bi mu njëkk a yeesal jàkka jooju ci teewaayam seex te ci ci ndigalal Seex Abdul Ahad ak teewaayam. ba denc boobu sax wax nañ ne boobu suñu Abdou Lahad mi ngi fi waaye denc boobu moom moo ko feeñal ndax moom lañ wax ne ko sëriñ kër xam nga fee denc bi nekk nga xam ne moom moo ñëw eh, di diggal ñu gas ñuy gas di gas di gas di gas nag ñuy gas ba nga xam ne eh, xaw na kii ko doon dox naa xaw naa naagu ci ne ko nag gasar rek bi mu gasee nag daal di gis ne eh, àgg na ci xeer yi ci la bi ci la géeru kon bokk bokk na ci liggéey boobu it mooy yeesal gi mu yeesalaat xam ne da ko tabaxaat yeesalaat ko bu baax a baax bokk na ci euh, liggéey bu yaatu boobu mooy régulation bi nga xamee ne amoon na ko ak njabootu sëriñ Touba ndax bu fekkee nit ki dafa toog xilaafa faaw maanaam mu bàyyi xel ne jataay booy juróom la tooge jataay bi Cheikh Moustapha nag toog ko yombut waaye moom doon na ci jëm la man moo tax régulation bi mooy fexe ba dajale mbooloo mi ñi nga xam ne ñoom ñu doon ay taalibe boole leen ñu nekk benn sosal sosale ab daayira boo xam ne dañuy yëkkati tegandoo waaye fexe ba régulation bi nga xam ne moo am ci diggante njabootu Sëriñ Tuubaa gi mooy yeesalaat ko boobu lañu régulation bi mooy diggante mag Cheikh Abdoulaye Lahat régulation bu rafetoon la boo xam ne bu amul woon sik la nga xam ne sëñ Mbàkke Madina daana jógee këram ay yoon yoon di ko di ko di ko di ko gana ji daana raatale këram ay yoon yoon yoon sëñ Abdou Lahat daana ko daana si xamu yu baree baree bëri bokk na ci régulation boobu mooy diggante ma sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma nga xam ne régulation boobu moom ndigalal waajuram la woon ginnaaw ba ndigalal yàlla yooyu ndigalal waajuram la woon ndax juróom kat moo toogal ba yàgg mu woolu Sëriñ Mbàkke Madina ne ko sëriñ ndax bu jamono soppi koo seex dana jiitu nga ndax seex seex dana jiitu nga topp ci ginnaawam mu ne ko waaw sëñ seex Mbàkke ne ko waaw sëñ seex ndax bu jamono soppi ko ndax danga nangoo jiitu sëriñ topp sa ginnaaw mu ne ko waaw ci ginnaaw mu boole waat leen benn jataay ne leen waaw ndax sëñ seex bu jamono soppi danga mën a da mën a jiitu sëriñ topp ci ci ginnaawam sa ginnaaw mu ne ko mu laaj sëñ sëñ sëñ sëñ Mbàkke man na sëñ Mbàkke man di wax la mu wax la ne ko nag bu ëllëgee bu ëllëgee nag ku ci topp yàlla xam ne ko yàlla dana ko ci toftal moo tax ñu wax na relation am sëñ Seex Mbàkke lu rafet la ba tax na mës a génn Tuubaa te tëggul sëriñ Seex waaw da bu doon xëy daanaka daanaka bu doon xëy balaa def dara day dem nuyu ji sëñ Seex daanaka daawut toog itam daawut dugg këram ci ay ci ay ci ci ay dàll waaye daawut toog ci kanamam itam li nga xam ne mooy mooy mooy mbaxana loolu la ko waral mooy cër bi mu ko joxoon ngir ne mooy mooy mooy mooy mooy magam waaye Serigne Cheikh Mbacke Serigne Modou Moussa boole leen muy boole goo xam ne ñu war a rafetal la waaye Serigne Mbacke Madina moom rafetal la bu baax a baax bokk ci lay tegtale rafetal googu mooy am na màggal gu xewoon goo xam ne màgg Daaru Xudóos goo xam ne Serigne Cheikh Mbacke dafa ajowoon màgg ba mu demee am fu mu jàlla mooy libaa keroog day euh, màggal googu Serigne Mbacke Madina moo ko jite woon waaye Euh, mbollem hadiya yeng ko fa joxon yep hadiya yoy dako ko ba seigne Cheikh mbake ñew mu jëbal ko hadiya yep lolu moy tap gi ko topon ci tap gi gën rafet bokku na ca moy amna euh, ben talib bo xamne masna ñew dajale hadiya euh, ca ca ca ca ki ki bañ bok manam dayra bañ bok bi ñewé jox ko seigne mbake man seigne mbake man ne ko demal nga jox ko joxal mako seigne Cheikh ndax man Serigne Cheikh du fi nek may may may may dajal dara nga xam ne loolu moo waral moom jiréew lu fi suñu seex nekk mës ta sos ay daayira mës ta taxawal dara topp ci ginnaawam euh, di déglu déggalam waaye naka na bokk na ci régulation boobu itam mooy diggante mag Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne bi fi sëriñ Mbàkke sëñ Modou Moussa jógee Cheikh euh, Mamadou Fadal moo doon a wasilaam te loolu sëñ Modou Moussa moo ko digaloon ba mu koy digal alxuraan jooje ma ko doon jàngal mu ko doon mu ko ma ko doon jàngal ca bayti yàlla dogal bi mu génne laata moo fi jógee da ko waxoon ne ko ku fi boo fi boo fi nekkatut ku fi wuutu sëriñ Tuubaa maanaam na doon sa wasila motax manam mu mu mu dëgganaat loolu bi fi eh, si Moussa joge lam def rek moy dem jebal eh, bopam Cheikh Modou eh, Cheikh Modou ni Fadal waye fofu itam dang ci deugene njabotu seigne touba gi yep gen ben lañ ndax ci bir njang momé xam nga né amna njangine wo xamné seigne si Modou Sa waxon nako seigne bakki Madina ko xon moy seigne de deugina yang jang alquran waye bu mu fi joge bu ma jëlee teraay bi na la xamal anam wi gën bax jang alquran yalla dogal nak bi yalla dogalee manam mu jangal ko kaamil ba dem nis kii suñu woo ko ne ko sëriñ bi de jóge na fi waaye mu toog ab diir dem ci jébul di jébul Cheikh Modou euh, Cheikh Modou Fadal Cheikh Modou Fadal ne ko sëriñ dégg naa yaa ngi jàng mu ne ko waaw mu ne ko waaw jàng alxuraan gën de mooy booy jàng alxuraan daanaa ko nikk jàpp ne ko jàkk xool làmmiñ mi di ko tudd muy sëri ci xol bi daal di woog loxo ba daan ne ko loolu day boo ko defee ba mu sëxin sa yaram wi nga ko daggoo alxuraan lay doon nga xoolal nga xoolal nga xoolal loolu li mu yéemee rek mooy jàngeen woowu Cheikh Modou moo ko ko digg moo ko diggoon waaye nag à la fin bi Cheikh Modou Fadal moo ko fet li maanaam wax ko na nañ ko war a defee te gis nga sëñ Modou Fadal koo digul rek waaye waaye jot jotu ko jotu ko leeral. fekk loon jotaay ba ko ngoog kon loolu dafa doon loo xam ne lu yéeme la lu yéeme la xam naa bu fekkee kii incha allahu taala mënees naa kii foofu boo ko defee incha allahu taala bu ñu dellusiwaatee ci pàcc bu diis rek mënees naa wax nag léegi ay jikkoom ak yu mel na tënk ci tuuti rek incha allahu taala bala ñu yëkk jotaay ah lu mat a bàyyi xel incha allahu taala lu mat a bàyyi xel la jërëjëf sëriñ euh, Moustapha Dieng macha allah euh, tubarkàlla sëriñ Mbacke Madina moom dundam gépp mm, tawféex la mm-hmm. euh, ndax it wax dëgg yàlla dafa mel ne cërëb doomi sëñ Tuubaa la yoroon mhm. waaw ndax eh, gis nga bi mu yeesal cërëb yeesal bérébu na Abdou mhm. Mhm. cër bu rëy la waaye Cheikh Blaha tam gis nga cër bi mu ko joxoon bi mu yeesalee jumaa Daaru Xudoos ji ba pare dana ko waratoo fekk kenn dañ lay fekk si léegi foofu mën nga fiy julli si it ak lépp loolu moo ko sabab kon xam nga ne kon taxawaayam taxawaay bu rëy la te ku sëñ Mbàkke ku sëriñ Abdou Lahat doy la woon la te eh, jox ko jox ko cër bu yaatoo yaatu te mati ko sëkkit nag te xam nga ne wax nañ ne ci eh, bi nga xamante ni sa taayif gi da mel ci mom la féete woon waaye euh, dégg gum dégg yek rek ne serigne Cheikh Mbacke kat yitte woon a dëkk boobu mu daal di koy da koy bàyyi lépp daal di dem xam nga lolu tamit ni ngi koy fatali dañuy bëgg ñi ñuy déglu di ci roy nak ndax ñoñu Euh, mënoon nañoo def nu ne. waaye dañuy dañu doon won yoon wi ñun ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw. ngir buñ ñëwee. ñu mën a xam fu ñu teg suñu tànk ba foofee ñu jëm ñoom ba egg fa nëgëni si. ñun nit ñu mën a egg ci ñoom kon dafa mel ne taxawaay bi rafet na. waaye sëñ Cheikh moom it noonu la def. daal di jël tindoo di jox ko sëñ Ahmad tindoo di. te fekk mooy moo ko nekkoon benn doon doon ñu nawlante woon te bëggante woon lool yaakaar naa loolu lu am solo la kon ni ko waxee rek li ci des mooy euh, jukko yi wax nga ko sax ndax xam nga ne koo xam ne alxuraan la toqo woon nga xam ne Euh, ñu nekk ay ndaw di ñëw bayti di ko di ko xool. Mm-hmm. Euh, kenn mësu koo ñëw fekk ko te loxo alxuraan alxuraan nekkul ci ay loxo. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom lu ñëpp mënoon a seere la. waaye gis nga photo bi tamit. benn problème boo xam ne daanaka euh, daanaka gis sa xëy na waaye bu bu fekkee nekkul ci mbooloo. boo gisee problème yëpp day mel ne mi ngi téye. alxuraan ci loxoom mm-hmm. kon kooku day mel ni dundam gépp alxuraan la woon waaye tey nag ñun ñu mën koo wàccee mm-hmm. ba ba mën cee tudd yoo xam ne mm-hmm. ñi mel ne man te seen seen xam-xam soriwul ñu mën a mën a roy ci loola ndax bu ñu alxuraan kese day am ñoo xam ne bu ñu ko lëmee noonu du du leer ci seen bopp waaye nag ci ñëw ci jukkoom yi tamit euh, baax na ci sëñ waaw bu ñu dikkee ci ay jukkoom moom Serigne Mbacké Madina te xam nga ne itam ñu ngi ko waxoon léegi rek makaaro axlaaq moom la ñuy nawe nit nit ki moom loo mën a mer rek te moom amoo makaaro axlaaq amul dara moom nag dafa feesoon dell ay ak ak makaarimu axlaaq bokk na ci jikkoom yooyu mooy ku tabe la woon ku tabe la woon te ku ne xam ne tabe eh, lu am solo la ndax ni ko yéen bi saa la waxee tabe ak garab la ci àjjana taa mel ne car yi daal la nga fii ci àdduna ku tabe mel nga ne koo xam ne da nga jàpp ca car ya boo ko tabaay mu tabe la àjjana ku tabe la woon li ciy firnde mooy am na eh, benn bis foofu ci këram googu am ku fa ñëw am yite lool ba ñëw fekk bi jàpp waaye bi mu dikkee eh, mu yëg te jooju sëriñ bi daa yónni genn gisee goo xam ne ca la ñuy dajale hadiya mu daal di koy lalal na ko tibbal jox ko ba kooku ndare tibb eh, ndare tibb tibb tuuti dana ko de dana dana ko jox ko jox eh, maanaam junj ko ne ko maanaam tibbal bu baax nga xam dafa tibb ba ay loxom fees loolu ak tabi mënu ko weesu naka noon nit daana jaabante ci moom ay yoon yoon yoon ci benn bis nga xam ne bu dikkee tey sol am mbubu bu dikkee sëriñ bi jox ko mu dem sol menam bu sëriñ bi jox ko te sëriñ bi day xam ne jëmm ji mooma mm-hmm. waaye fii ne nii du ko du nangoo xam ne sax ndax xam na ne moom la wala yu mel noonu ba noppi tabe tabe tabe itam dafa am façon bu am solo boo xam ne sëriñ bi da def mooy am na ñoo xam ne bi ñu la joxee duñ yàkkamti nga ñëwaat waaye sëriñ bi bu la joxee sax day yàkkamti nga ñëwaat te waxtu woo dil suwaatee du la wan kanam ak ñëwoon nga fi léegi kon loolu moo nekkoon ci moom bokk na ci it mooy ay jikko mooy ku nawla woon ak ak ak ak ak ko yàlla bool yëpp dafa nawla woon ak ak ñoom loolu euh, xam nañ firnde leer ndax sama maam di sëriñ Abdou Ngoone Jang ci moom la jëbbalu woon mu bàyyi woon ko xel lool nawalante mënta mu nare gën àdduna bi mu tëddee feebar ca ñaareem da koo daal di ko taxawaay di sëñ Cheikh Mbacké euh, sëñ Cheikh Madina mu dem fa euh, ba keroog ñu koy sànqal keroog ñu nga xam sëriñ bi dafa ñëwal boppam loolu nawalante sax ak yu bare bari yoo xam ne mën nañu ko tudd ci wàllu googu waaye dañuy tënk ci wàllu googu rek bokk na ca euh, ak euh, ay jikkoom yu rafet mooy ku bari woon yërmande la ku bari woon yërmande la ndax daana wax ne kat doole doole sama yàlla dénk duma ci tooñ duma ci fay ak tooñ ba tax na foofee ca Madina boo juumut am na ay taalibeem ay pël yu ne fa ma sa ruural waaye ci bari yërmandeem bañ histoire am seen diggante bañ leen fayee ñu ne dañu doy ba leen taalibe fay ñu ne duñ duñ fay ba coow nara am sëriñ bi daa woo pël ba bañ ñëw mu jox leen luñ fayee mm-hmm. mu jox leen ak yu bari ci wàllu gu mel noonu nga xam ne ne ku bari yërmande la woon bokk na ca mooy dafa benn woon a jullit ñëpp euh, waaye rawatina ñu mbokk Serigne Touba ndax am na benn mbokk moo xam ne ku ñu wax Baye Ahmad Diaw dafa sa dem ci Serigne Serigne Mbacke ma di ko di ko siyaare ji bi mu dikkee laaj ko mu ne ko noo tudd mu ne ko Ahmadou laa tudd mu ne ko xanaa si Ahmadou lañ la tudde mu ne ko waaw mu ne ko waaw Ahmadou man maay moom foofu siyaare rek mel nga ne fii nga nga xam ne loolu kon di tegtale mooy Euh, benn woon ak ñëpp loolu moo tax bu doon génn tubaa war a jëm ci ab dëkk ku mu romb ci koo xam ne seqoon ngeen wëllëre daan la nemmiku waaye ko ku mu romb itam nga xam ne diin diina ji moo leen boole daan la nemmiku waaye nag naka noon noonu itam rawatina koo xam ne daa xam ne kii moom ci njabootu seen gi la bokk kon loolu bokk na ci ay jikkoom yu rafet waaye bokk na ci jikkoom yu rafet itam mooy ku nooy la woon ku nooy la woon waaye bokk na ci yooyu itam mooy ab taalibe woon ku bëggoon Serigne Touba ba tax na euh, Serigne bi da ko war ma lool Euh, li ci firnde mooy euh, Cheikh Amadou Moustapha euh, su ma juumut Baye Mor Masama ko net dama xamul dëkk bu mu waxati xombal waaye yaakaar dëkk yooyu benn la ca nee na moom ba mu fay tërbeewu am na néeg boo xam ne Cheikh Moustapha moo ko moomoon waaye keroog ba ñu laajee ndigal ne ko sëriñ bi dañ koo bëgg a yeesalaat da ca xaw a ne tekk tuuti ba yàgg mu ne ko buñ ko buñ ko mënta ñàkk a yeesal na ngeen fexe ba bant yenta ci delloo nga xam ne loolu mooy ba lépp lu sëñ bi moom duñ nangu muy tax muy muy muy taxawaal lépp dañ koy bëgg a waggat denc fi barab kon loolu lu am solo la waaye lu mat di bàyyi xel la ku bëggoon xasida yi itam la doy na sëkk bu ñu xoolee jàngkat yi nga xam ne ñoom ay taalibeem lañ sëriñ Wàdd ak ak euh, mi ngoog ñu baree bari ci ñoo xam ne maanaam ay taalibeem lañu woon nga xam ne la bëgg bëgg xasida yi moo leen lu baree bari xëy na moo ne bële ak ñoom ginnaaw ba taalibe gi jiitoo waaye ni bëgg euh, sëriñ bi bëgg xasida yi noonu la daan toppee fu ñu daan jàng xasida day topp ci ginnaaw masalan bu dee loo xam ne sëñ bi da ci nett duñu saxaaba yi bu ñu àggee ci Seydina Omar day tudd ah a ngi noonu de bu ñu àggee ci Seydina Osman ne ah, Osman a ngi noonu de nga xam ne day baamtu xasida day day day baamtu kii nga xam ne day jàng di ànd ak ñoom loolu mooy ko war maa doon xasida yi la waaye ko ku leen bàyyi doon xel loolu ngay wax it mooy mooy bëgg alxuraanam nga xam ne moom daanañ war wax de maanaam euh, dawul xëy te wàcce wàccewut ab kaamil waaye loolu sax waxin la waaye moom tëkkoon ci loolu tëkkoon ci loolu moom daal fu mu nekk moom boo ko gisul muy wérd gisoo ko muy jàmmante gisoo muy dalal ay nit moom ma nga ci alxuraan ji kon loolu moom moo doon melokaanam ñëpp itam loolu lañ ko miin lépp lañ ko bu ndikkee itam ci seere yi hmm. seere yi nga xam ne ñoom la ko ñoom la seere xam naa ne waaw kon xam naa kon ku mel ne hmm. euh, Cheikh Mahamadou Basir waxoon na ne Serigne Mbacke Madina mi day sun doom la waye moo ñu gën fuuf lool doy naa yem. doy naa yem waaw maam daana wax ne tam Serigne Mbacke Madina day ku mu jiite mu taxe ku mu jëlee ku mu jëlee mu taxe ndax ku mu tinu yàlla dana ko tin waaw lool doy na sëkk ndax xëy man na ci wax yu bari bari waye yooyu doy na sëkk wax de yalla kon nak nañu gor góorgóorluwaat wat xamne dal Serigne sa ngi ni mm-hmm. ñu bax ñangi ni roy wa yaangi ni ku len top jaar ci seenu yoon mm-hmm. top seen jeexental man nga am texe àdduna texe àlaaxira képp ku ne ñu ko nag dem ak sa bopp boo boobaa day boo dalee till ga wala gaynde ga mu lekk la nga xam ne yaa ko teg sa bopp ndax wa anna haza siraati mustaqim fattabi'uhu wala tabi'u subula fattafaraqa jox ñu aw yoonam ne lii mooy sama yoon di siraati mustaqim jaar leen ci waaye nag bu leen topp ñal yi ñal yi nag mooy nga la jaaroon Sëñ ca lañ jaaroon sëtam ñi nga xam ne mën nañ ko sëkk ay roy waatam ci loolu lañ jaar waaw suriyatan tujaddidu suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu loolu sëriñ bi ñaanoon te suñu borom nangu la ko kon lii moo jukki suñu Mbàkke Madina kon ñu ngi wàcc foofu kàddu yi rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu eh, jërëjëf sëriñ Moustapha Dieng ñu sant ko gërëm ko mbokk yi waxtaan wi mi ngi noonu sëriñ Mbàkke Madina eh, lañ doon waxtaane muy jàmbaar joo xam ne eh, ku dëddoon àdduna la noot bakkanam nga xam ne bakkan ak ak seytaan nekk àdduna ak bànneex yu bari fu waay dugg rek ci lu dugg moo la moo la ci dugal te ñoom dañ koo nootoon ba moom ko ndax dëdd anontéewul yaakaar mi fi jógee yaakaar nañ li li ñuy war a toppatoo ci moom du ay kër yu moomal boppam wala ay oto wala dara waaye xëy ne bu weesu alxuraan jooju nga xam ne moo gën a loon maama ji bu fank ko yaakaar naa ci wàllu àdduna Euh, am na lu mu ci jàng loo xam ne mm-hmm. duñ ay doomam bàyyi leen fi dara lu dul Serigne Touba mm-hmm. te gis nga euh, duñ jeexal dara mm-hmm. kon dafa mel ne kóllëre googu it nag nga xam ne moom la doon sàmm am na seere bu mu la ci mën a wax ndax sama maam ji nga tudd léegi ne moom la àndaloon dem ca euh, bu su bu bu ko demal gunge ko ba ca armée la kon loolu firnde la kon ku mata roy ngi noonu ndax ñoom it nag dañu dañoo xalal aw yoon woo xam ne liñ bëggoon mooy ñun ñu am jàmm jam ndax xam nañ ne jamono fi lay mujj waye ñom ñu lañ yéen jam kon ñu nit euh, nañ fexé ba jema jankonté ak yi nga xam ne ñoom lañ jankonté won ñom ba fi ñu egg ñom yegg fa ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm delu wat sant ñi nga xam ne ñoo ñuy top ci YouTube bi euh, ci jant bi TV ñom amuñu seen fay wax deug yalla ñi ngi leen di gëna ñaax rek ci ñu top ndax ci jant bi TV mom li rek lay lay andi moy njàngaleem Sëriñ touba mo xam ne dañuy fexé ba doom adamay bi lu mu ruqe ruqe ak fo nek lu mu sori sori lo tap de tap de nga mama bo xamne da nga ci am dara ci sa ci ci ci sëriñ bi loo xam ne da nga ci mën a euh, mag ñi mën a mën a mën a jàpp ba mën a defar sa diine defar sa ngor ñu ngi santaat sëriñ Malick euh, sëriñ Ablaye Samb